mbokki internet yi rawatina les abonnés de Sénégal 7 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci seen rubrique kumpa gi altine tey jii tombeek ñaar fukki fan ci weeru décembre deux mille vingt 2021 di mandargaal li nga xam ni mooy fàttaliku génn àdduna ki fi nekkoon njiitu réew bu njëkk fii ci réewum Sénégal di Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor moomu nag mi ngi gane àdduna ci juróom-ñeenti fan ci weeru octobre 1906 foofa ca Joal Fadiouth nekk ci département bu Mbour ci région bu Thiès gannaaw nag ba nga xamee ni def na ay étude primaire am ak ay études secondaire am kii di Léopold Sédar Senghor daal na nag bàyyi ko fii ci réew mi dem ca tugal ngir mën a wéyale li nga xam ne rek mooy ay études supérieures am ba mu fa àggee nag mën nga daal di jubali ci université bii nga xam ni mooy université bu mag boobu ñu tuddee Sorbonne gannaaw ba fa defee ay études am si la nekk nag premier africain bi nga xam ni moo jëkk agrégé ci li nga xam ni mooy grammaire nekkoon ndam lu rëy si gil der bu ñuul waaye nekkoon tamit premier africain bi nga xam ni moo jëkk siégé fi nga xam ni mooy académie française loolu nekkoon cër boo xamante ni ji bu rëy la woon ci Afrique waaye ci Sénégal ki nga xam ni tamit mooy Léopold Sédar Senghor ci ñu bëri umpale mosoon na nekk ministre ci gouvernement français avant l'indépendance ba tax na nag moom ki nga xam ni mooy Léopold Sédar Senghor ci jamono yi deuxième guerre mondiale 39 45 jotoon nañ ko enrôler maanaam dugal ko ci les tirailleurs sénégalais yi nga xam ni ñoo doon dem di xeex ci wetu français yi gannaaw saga nag ba yàlla defee mu mucc ci guerre boobu ba mu dellusee nag la continuer di wéy di xeex li nga xam ne rek mooy siggil doom der bu ñuul ànd ki nga xam ni mooy xaritam ba jegañaaleem ba di Aimé mi nga xam ni notion négritude moom moo ko jëkk daal di jëmmal taxawal ko ngir xeex ñi siggil der bu ñuul jox ko ak xam ak yellefam ci àdduna bi yépp Léopold Sédar Senghor moomu nag gannaaw ba nga xamante ni ji xeex boobu may na leen ndam ci ngir Afrique am indépendance si la Sénégal nag daal di jot boppam ci atum 1960 loolu may ko nag mu jëkk nekk premier président de la République du Sénégal ci 7 septembre 1960 ba jàpp 31 décembre 1980 te gannaaw ba mu demee nag ba xam ni war na bàyyi bàyyikoo ci boppu réew mi si la daal di nag euh, woo ki nga xam ni moo nekkoon première ministre di Abdou Diouf ci discours de la nation bi nga xam ni amaloon na ko ci 31 décembre 1980 si discours boobu nag si la xam xamle ni jël na lenge yi jébbal ko ki nga xam ni mooy première ministre di Abdou Diouf ngir mu jiite li nga xam ni mooy réew mi loolu daal di may Abdou Diouf mu nekk deuxième président de la République du Sénégal le 1er janvier 1981 ki nga xam ni nag mooy Léopold Sédar Senghor gannaaw ba mu génnee àdduna foofa ca réewum France ca Verson andi nañ ko fii ci réewum ci Sénégal daal di koy rob nag ci armée catholique yi nga xam ni moo nekk fii ci Ndakaaru ñu gën ko xam si cimetière yu Bel Air fa nag ak ki nga xam ni fekki na ko nekkoon bras di Bruno jata nga xam ni lépp lu jëmoon ci wàllu protocolaire ci foofa ca présidence ba moom la tegoon ci ay loxoom waaye ci fàttali rek ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam ak ay jegeñaaleem di sàkku ci état bu Sénégal ñu jëlal leen ki nga xam ni mooy Léopold Sédar Senghor yóbbul leen ko fi nga xam ni fa la cosaanoo muy sëg yi nga xam ni ñoo nekk foofa ca Joal Fadiouth lu nu mel nag ba ba léegi ñoom ñi ngi taxeerlu ngir ñi nga xam ne ñooy état bi jàppale leen ci waaye ba fii ñuy wax ak yéen ba léegi loolu